di ko xor ñoñal di ko xor ñoñal di ko xor ñoñal ba yaayam génn àddina. ak xol bu jeex tàkk xol bu naqari di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sunu maam sunu waajur waaye ko muy waajuru maam Faata yu jigéen maam Faata Mbeng yaayam dafa nopp lu biig ca poroxaan ba fii may wax ak yow ngi koy denc ca poroxaan ñi ngi jël doomam ji xay ne moom rekk la bëggoon ci àddinaam muy maam Faata teg ko injustice tooñ ko tëj ko ci kaso bi dipp boobaa léegi kenn waxut dara ci maam Faata toj palaasam muy miseerlu yaayam di miseer loolu ba génn àddina moom maam paate yaayam noppalu na biig patriote yi yëpp na ngeen ko dégg da ngeen xam ne Sénégal du réew ku naan réew mi démocratie am na fi da ngay nax sa bopp da ngay trahir yi bu leen ko fontoo ñaata nit ngeen tëj ci kaso yi ba seeni waajur misu misère koo génn àddina ndax xam na ne seen doom ku jub seen doom liggéeykat la moo leen doon dimbale ngeen teg ko injustice seen yaay di misère seen baay di misère ba génn àddina gii tooñ kañ lay jeex gii tooñ kañ lay jeex yéen jàmm dina am ci réew mi fu ñu koy jëlee tooñ yàlla guddi tooñ yàlla bëccëg ndax doomu aadama yàlla gën a fonk maam Paate lu mu wax ci réew mi lu ñaaw lu mu def ci réew mi ñoo ñaaw ngeen jàpp doomi jàmbur ci dugal ci kaso bi yaayam di ko misère ba génn àddina bi poroxaan yàlla baax na am naa lu ma metti trop ci gor su ne maam paate ngeen yaayam téyeku di ko xor ñoñal di ko xor ñoñal di ko xor ñoñal ba yaayam génn àddina ak maam paate ni mel ci yaayam doo ko bàyyi na ko dara nga def fekk ñàkk na yaayam nga ne nga ne yow da nga am jàmm yaag sa njaboot ci àddina yàlla baax na waaw maa ngi koy jaale mboolem ku bokk ak Maam Faat sama xol fees na foofu bokk ak Maam Faat sama xol fees na laa mën a yemali